fukki waxtu ak ñaar ba mu jotee la ñu fekk ab bu tëdd euh, fi nga xam ne nag moom mooy place de la nation te nekkoon place de l'obélisque nekk ci booru Fass moom nag fekk na ne ñàkk na bakkanam nit ñi ba ñu commencé ñëw ab waay daal di woo sapeur pompier ngir rek ñu daal di ñëw euh, jëli ko fi ñooñu it ba ñu ñëwee dañoo woo waa police su quatrième arrondissement ngir ñu ñëw def euh, constat bi ba ñu ñëwee gis nañu ne waa jooje ñàkk na kenam mi ngi tuddoon Jabel Thiam ma nga dëkk nag fi nga xam ne moom mooy Diourbel la ci sax ñi nga xam ne fekk nañu mbir mi ne nañu ne ñaari fan yëpp fii lay ñëw di fi tëdd ña ngi ko fekk sax mu amoon ndox ak bonbon boo xam ne naroon na ko jël di ko jëfandikoo ci loole nag sapeur pompier daal na koy jël yóbbu ko ca hôpital ñuy woo rek képp koo xam ne xam nga Jabel Thiam wala nga nekk ay nga xam ay mbokkam ma nga dëkk ca Diourbel te ñàkk bakkanam tey jile nga daal di rek approché wu ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sapeur pompier wala waa police bu quatrième